bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi jégguluwaat di jëfe ndigal nañ ko daan jafe mu bàyyi ko mu bàyyi ko ci ku tedd ki Seex Muhammadul Muntaqa